Ousmane Diallo di bokk si kuréel bu ñuy wax éducation éducation nag dafa de dafa nekk kuréel boo xam ne si mbirum jàng ak formation lay saytu lay lay yëngatu dafa fekk ni nag euh, Euh, ñu ñu gën a xam ñu ñuy xam si école yi dafa fekk nag du école yi rek ñoo yore ay xale ñi nga xam ne ñu ngi jàng parce que daara yi aussi si jàngukaay yi la bokk comme que suñu ndimbal nag xale Sénégal yëpp la concerne dañu ne il faut ñu am ñu liggéey aussi si daara yi moo tey que xale yu nekk si daara ak xale yu nekkul ñoom ñëpp xale yu Sénégal lañu kon bu fi ñëw rek ñoom ñëpp am nañu si seen wàll euh, nit ki nag da koy fekk si li mu ne ngeen waxtaan diisoo ba xam lan loo fi mën a def dafa fekk nag comme que daara yi dañuy bari si tund bi Diourbel ñu ñëw fi nag maanaam lëkkaloo ak inspection ak commune bi dañu taamu benn daara boo xam ne ñaar daara yoo xam ne ñoo nekk suñu maanaam fu mu mën a essayer lu ñu bëgg a def parce que mbir mi yëpp ay ay ay nemmeeku la rek. yàlla def na vraiment mbër mi si la fii ñu daje fi ak nit yoo xam ne vraiment ñu ngi bëgg vraiment yaatal seen jàng ñu ubbeeku ñoo xam ne ni vraiment bëgg nañu liggéeyal lëkkaloo ak boutique loolu loolu dimbali suñu liggéey trop mu toog na vraiment am ay waxtaan ñuy am si ñoom ba ñu mun si def lu ñu def. def fi ay hangar bërëb bu nga xam ne mën nañ fa jàng bërëb yooyu am am maanaam électricité boo xam ne solaire la ñu def fi aussi ay ay suturukaay maanaam ay ay ay ba pare aussi jàppale leen si seen jumtukaay liggéey maanaam lu mel ni téere yi lu mel ni ay basam lu mel ni ay matelas parce que xale yu bëri ñu ngi fi fii lañ dëkk te vraiment su ñu euh, ñu doon ni ñu nekkoon dafa dafa laajoon vraiment ñu gën ko améliorer donc ñu jàpp si vraiment ñu waxtaan ak ñoom ba ñu ne jumtukaay yu bëri dugal nañ ko si daara bi élevage yu baax def nañ ko fi ba pare nag léegi ne loolu yëpp baax na mais il faut ñu yokk encore lu yokk bi mooy ñu yokk meneen yeneen xam-xam boo taxit ñu ne il faut que ñu liggéey ak ñoom ba def fi ay projet yoo xam ne ni dina tax xale bu fi jóge mu am xam-xam boo xam ne même bu delluwaatee même bu dee béykat lay doon lay delluwaat si béy bi lay delluwaat mais dina am dina béyee neneen béy béy boo xam ne ni vraiment dina am yokkute bu dee aussi sàmmkat la dina sàmm mais loolu dina bokk si li nga xam ne dina jëmale kanam donc na si vraiment fi mu ne. waaw xam nga boo ñëwee si bërëb bu ñu liggéey rek mënoo ñàkk tàggat euh, mënoo ñàkk tàggat euh, ku nga xam ne nii day day day jàngale. parce que bis bu nekk kuy jàngale moom ñu ngi koy tàggat parce que chaque jour dafa am bis bu nekk am na am xam yu bees xarale yu bees yu génn donc ñi bokk na si tàggat yu ñu leen def dafa fekk nag tàggat bi du ak tàggat bu xam ne moo am si école école par école français donc bokk na si loo xam ne ni donc euh, am na ay tàggat yu ñu ci si dimbali inspection ak mais aussi ñun same ñu xam-xam parce que déjà am nga daara dafa nekkoon mbirum sëriñ daara bi ak ak ak ak xalé yi ñun dugg nañ ci ba légui tay té teural nañ ay kurel waxtaan yo xamné lool yépp bokku na ci xamné tagat la pour mëna boole dëkk bi yépp ak dëkk yi ko pour que ñëpp mëna dajalé seen doole ci ci ci ci dara lool bokku na ci lo xamné mais aussi ay xam xam yu bes parce que néna leen dañoo bëgg xalé bu fi joggé du non du doon alcorane bi rek mais dafa am yeneen xam xam lool nak soko bëggé def il faut que nga tagat nit ñi mais aussi yokal leen sa ay personnel parce que so bëggé def il faut que lolé nga am loy loy loy loy liggéey si loolu liggéey bi nag fii la Diourbel mais aussi Kale Kolda si Vélingara parce que am na ñaar dara aussi ñu am ñu koy liggéey en tout cas am na lu bëri li ñu fi jàng am na lu bëri li ñu fi tënk yaakaar nañ ni loolu mun na bokk si loo xam ne ba tey nguur gi bu ko jëfandikoo vraiment mun na dimbale pour que kon ne maanaam ñu liggéey si daara yi gën a baax te ñun ñi mun a def liggéey bu gën a baax. Euh, Sara Diouf nekk ki nga xam ne man maa teewal mbootaay bi ñu wax rek ko def te rek ko def nekk en partenariat avec Aide Action ñu liggéey ci goxu Ndindi bi ak Tokki fii ci département bi Diourbel ah, bés bi nag ni ngi ko waxee ah, ni ma ko gisee dafa am solo dafa am solo parce que bés boo gis li ko wutale ak yeneen bés yi mooy la ca xew te li xew ci bés bi nag dafa ràññeeku par rapport ak li doon xew ndaxte lii mën nañu jaaxle lu des la li ko tax des mooy mosuma gis seen ci réew mi yàgg na foo xam ne gaaral alxuraan boo xam ne dafay nangu ñi ñu jàppale ko lépp li bu gis loo xam ne war naa mën a améliorer mbir mi ak njàng yi ñu jàppale ko loolu ci boppam duñ def ko bi ñu am li ñu am fii tey bu fekkee dafa am nag pour la première fois ñu encadré bi mu am dafay doon loo xam lu xew la loo xam ne lu wees la donc looloo tax nag bés bi ko bu wax ba donc li tax nak ñu organiser ko mu dem ni ñu ñëw boo dee lu bes loolu ci bopam loolu nga xam nañ koo def te bëriwul fu mu am dara ñu bu ko fa jëlee fexe di sorte que ñu waxé ko fenen ñu yóbbu ko fenen ñeneen gis ko roy ji parce que nee nañu njàng ci bopam foo ko mën a rek ci finition bi maanaam jeextal yépp xélé bi la war do bu dé arwan la bu dé école tubaab la bu dé ak lu mën doon lu né jeexitali daal mooy xel bi am yar xale bi am xam-xam donc bu fekkee noonu la demee lii ci boppam ñu jaaree noo xam ne fi mu ne nii ñi nekk jàng alxuraan la ñu jàppale leen ba. ñu gënoon ba nag mokkal xar alxuraan ci li gën a gaaw bu ko naroon def juróom benn at def ko ñetti at ak yu mel noonu bu fekkee dafay taw ñu mën a jàng bu fekkee li mu mënoon lu ne ñu mën a jàng parce que condition yi dafa day niru loolu ci boppam doon loo xam ne lu am solo la donc loolu moo tax bés bi ràññee ko moo tax ma ne la bés bi en tout cas rafetlu naa ko euh, xam naa ne également doon na loo xam ne en tout cas sawar naa lool pour dugg ko. pour jàpp ci bés euh, dëkk bu mel nii dëkk population bi mën nga euh, téye ak ko war a téye nag euh, mën naa ne sax fi mu ne nii nañ ko doon séenoo def nañ ko lu raw suñu yort parce que dañoo gis ne dèjà lépp luñ fi defoon ñoom dañ koo entretenir maanaam dañ ko san yàquwut bu yàqoo ñu defar te également doon loo xam ne ñoom dañoo ubbeeku. ku ñëw bëgg a yor xool xam loolu lan la ñoom ñu wan la ko ubbi seen i bunt donc loolu ci moom lu am solo la donc xale yi également li ñu doon seen ci xale yi moo am parce que fi mu ne nii su ñuy nekk di jàng gën baax na gën naa baax fuuf conditions yi ñuy jàngee gën naa baax fuuf te également gis nañu déjà ay xel am na ay xel yoo xam ne commencé nañ ci di ci génne xam-xam boo xam ne vraiment raw na suñu njort en tout cas donc euh, sa sawar ci ñoom rek parce que dëkk boo duggee rek nga yëg ne dëkk diine la boo duggee ci dëkk rek nga xam ne dëkku diine la dëkk diine boobu ci boppam rek boo waxtaanee ak ñoom da koy remarqué ci ñoom ci biir kër yi mais sa diggante ak ñoom également da xam ne ñi unité diine lañu. ñu gëm diine lañu ñu ko bëgg ñu ko dund la ñu koy doxal waaw sama gis-gis sax xanaa rafetlu rek rafetlu bu baax baax liggéey bi ndax barab bu ñu ko def barab bu ko yaayoo la bu ko soxla woo la euh, maa ngi fàttaliku buñ fi door a ñëw euh, mbir yi taxutu woon a euh, ndax fekkoon nañ fi soxla si li ci desoon rek mooy xam ñoom nan lañ ko bëggee ba buñ leen ko defalee ñoom mu mën koo sàmm. kon liggéey la boo xamante ne am na solo lool te yaakaar naa ni tamit li ñu tudd euh, mën nañ ko tudd daal intrant de qualité maanaam dafay doon loo xam ne dafay tax njàng mi ak njàngale mi ak yar bi gën mucc ay euh, ndax moom dañ daa sant waxtu yu bari ci wàllu wuti matt mu ñu matt mu ñu jànge muy taxani ca amoon ci ay jafe-jafe la euh, jafe-jafe na foo xamante ni demoon nañ ci ba ay gattax la ñuy jëfandikoo gattax la ñuy jëfandikoo ngir jàng te loolu xam ngeen ni képp ko xam daara gattax moom euh, mu ne su ko jëfandikoo kon nag bu ñu ñëwee dafa leen barab yu mel nii te bu ñu masaa di jàng dañuy toog ni dara du leen tiim dara du leen wër xam ni saa bu tawee euh, liggéey bi taxaw saa buy taw rek liggéey bi taxaw bu ngelawee liggéey bi taxaw ndax dañuy taal sawara te bu boobaa bu ngelawee dootu wóorati ci dëkk yu mel nii mën naa indi ay incendie ak ay nakk kon bu ñu leen yu mel ni barab yu aaroo yii nii ba nga xamante ni buur gi duñ ci mën a dugg ca bu taw guddi ak bëccëg ñu mën a jàng bu taw ñu mën a jàng loolu gis nañ ni mën naa gën a gàttal euh, yàggaay bi nga xam ne dong bi daanaka def ci daara ji euh, ngir ngir mokkal alxuraan euh, loolu yaakaar naa leer na moom. en tant que inspection yéen muy loo xam ne yéen a ko am benn partenaire bi ngeen ko defal léegi su boobaa lan mooy nekk seen taxawaay. taxawaay bi mooy rafetlu bu baax a baax ak accompagner leen ànd ak ñoom ndax. moo ko waroon def loolu dëgg la ni ñu ko waaye nag ni ma ko waxee ci fee ci euh, barab ba mooy ni euh, nguur xam na bi waaye léeg-léeg loxo du jot ginnaaw kon su ko defee bu amee ñu koy ànd ak moom ngi tudd ay partenaire ay partenaire technique et financier yooyu dafay daal di day doon lu muy rafetlu doon lu mu leen di sonn doon loo xam ne tamit da leen di tàllal loxo fu mu toll euh, fu mu ko bëggee rek mu ànd ceeg ñoom ci lépp loo xam ne njariñu Sénégal da ciy am njariñu xale yi da ciy nekk njariñu waajur yi tamit da ciy nekk loolu moom loolu la laa ci gis ni moom lu tuuti ci mën a am lan lay wax nag yi nga xam ne nag daara yi di jàng xale yi ñu valeur bi ngeen waaw waaw ñi nga xam ne ñoom moom daara yi moom dañ leen di soññ rek ñoom ak xale yi ñëpp ñu gën a taxawu lii li ñu leen defal ndax yóbbu def nañ ay ati ati at yoo xam ne ñoom bëggoon nañ ko xëy na ca amuñ ko woon ñu gis ku leen ko defal ci ndimbalul ay ay partenaire ak ci ñi nga xam ne taxawaayu euh, inspection yi muy bi ak IF bi kon bu boobaa ñoom it la cay seen wartet nag mooy sàmm ko bu baax a baax jëfandikoo ko ci jëfandikoo mu mucc ay ba euh, euh, yàgg gi mën a gën a gën a gën a yàgg Euh, kon ñoom taxawu daal ak gën a euh, gën barab bi ak euh, loolu daal moo ci seen warteef su ko defee njariñ ñu ci doon seen am ci